yaa gën a boole ñëpp sama gars ku dugg rek partagel de ku dugg rek partagel parce que euh, salaamaaleykum xam naa gis ngeen ko nii ah lii moom challenge la challenge boo xamante ni am naa yaakaar ne pour ñu aar suñu senegal ah aar suñu mbokk yi ak suñu mbokk jullit yi xam naa li nga xamante ni mooy ëpp importance mooy message bi mu jàll ngeen jàllale ko bu baax a baax parce que xam ngeen ne xamoon ngeen ne Macky Sall dina leen dugalal coronavirus Sénégal yéen xamoon ngeen ko ba pare waaw parce que li mu waxoon ne moom du ko du dem jëli suñu doom yi waaw ba mu waxee lool rek ci la suñu borom xam nga tontu xamal ko ne ko comme doo leen jëli xama nga dinaa bàyyi nasaraan si nga xamante ni ñoom ñooy sa baay ñoo lay sant li ñuy def ñu ñu yóbbante coronavirus bi sa réew te doo ci mën dara te gis ngeen ko muy muy muy ak tab naan ay duma joxe loxo ay coronavirus nangam ak nangam mais lii nii challenge la boo xamante ni xam nga démb démb xam nga ci match de gala bu amoon xam nga ci la ma sama sama jarbaat sama rak xam nga waali ne ngir yàlla xam nga Assane wax ci wax ci xam nga wax ci ba pare wutal masque xam yàlla def mu nekk jeune bu bëgg Sénégal ah yee parce que am na yoo xamante ni nit kuy xalaat ñëpp rek moo moo moo koy bàyyi xelam quoi parce que fi ñu daje woon ndajem fola munoon naa nekk ci boppam kese mais bi ma ñëwee bi ma joxee loxo ba pare rek loolu la ma njëkk a ñaan ne ma xam ma dimbali ma waay nga wax ci masque yi xam nga pour ñu mën a aar nit ñi xam nga muy muy Waly Seck xam nga démb stade Amadou Barry léegi nag li nga xamante ni moom moo ëpp importance xam naa man maa ngi nii ci kanamu école bi ah fi ma toog dafa xaw a dafa xaw a lëndëm tuuti mais xam naa yéen a ngi may dégg li nga xamante ni moom laa leen bëgg a wax mu am importance trop amal Sénégal importance mooy ñun dafa am loo xamante ni dañ ko bàyyi ginnaaw mooy mooy set set hygiène hygiène may ñaan xam nga bépp sénégalais foo foo nekk ci Sénégal xam nga yee loo doon raxas benn raxas ko ñaar loo doon raxas ñaar raxas ko ñett loo doon raxas juróom raxas ko juróom ñaar parce xam nga salte bi ci dëkk bi bari na xam nga te coronavirus bi xam nga mala yi mu jóge ba dugg nit ñi mooy mala yi nga xamante ni ci salte dong la ñuy dund xam nga ñi nekk ci àll bi xam nga affaire yooyu léegi xam nga comme nag xam nga tukkikat yi waa kër Macky Sall nga xam ne jël avion rek di tukki rek ñoom tukki nañu ba Air Sénégal indil ñu coronavirus léegi ñun dañuy fexe góorgóorlu xam nga ñu aar suñu bopp yéen waa géejawaay yéen laay waxal géejawaay Pikine caaro yëmbal ba Roi Baudouin ngir yàlla machine yi machine yi xolal matul réew mi xarañu ñu yenn xarañ yi ba pare yàlla def na am na jàngoro yoo xamante ni bu laalee sénégalais moom ñëppay feebar parce que benn koo joxul loxo mu mer boo rombee nit ki sax ne ko nii rek mu mer bëgg nañoo dégg salaamaaleykum te yenn saay wax ji sax xam nga am na ñoo xam ne jàkkaarloog ñoom wax jàngoro bu ñu bu ñu yor dinañ la ko wàll xam nga léegi ma doon ñaan xam nga suñu mbokk sénégalais yi suñu mbokk africain yi xam suñu mbokk diaspora bi xam nga lépp lu waay mën masque yi bu ngeen ko mënee jënd xam nga yónnee ko seen mbokk yi ñu tasaare ko xam nga que xam naa ne mbir mi moom du gaaw a génn Sénégal waaye nag xam nga lu mënti am rek na aw yoonu pale ba na aw yoonu pale ba dégg na ah? xam nga ba pare ah, di mastawu xam nga suma frère gi Marius Sagna xam nga Guy dama bëgg am message bu ma lay jox tey parce que xam naa ne tey am nga libération dafa am loo xamante ni ñetti at yi yëpp mi ngi fi am mooy jàpp tëj jàpp tëj huit ans huit ans Macky Sall yëpp képp ku wax lu ko neexul dinañ la tëj kaso képp koo xamante ni yaa ngi jóg di dal ci kaw état bi dinañ la tëj kaso te am réew boo ci nekkee di xeexal presque dix-sept ba dix-huit million vingt million doomu aadama ci benn nit te yow bu yenn mbir yi amee ñoom munuñu munuñu fexe munuñoo fexe rek ba lijjanti la la fi nga nekkoon xam nga delloowaat la ci say mbir yee xam nga xam nga boobu réew coono am na fa moo tax ma am message bii di la ko jox Baye Fall français yi munoo leen a xeex biir Sénégal munoo leen a xeex munoo leen a xeex parce que li tax munoo leen a xeex dañoo am gouverneur biir Sénégal am fi ay seeni sous préfet ak ay préfet fii biir Sénégal base militaire bi gën a mag ci biir Sénégal base française la benn ñu ñuy contrôler mel ne ñu yor seeni xaj di contrôler suñu président mel ne ku takk seetam ñetteel Emmanuel Macron xam nga Macky Sall mooy ñetteelam yaa ngi dégg dafa am ñetti jabar biir Afrique benn Côte d'Ivoire benn Guinée benn senegal te ñetti jabaram yooyu xolal kenn mënul wax lu ñu dégg ko dul Emmanuel Macron moo tax yow gii neewuma la bul xeexal Sénégal parce que yow dañu la soxla mais ñaan naa la ngir yàlla nga toog nga relax tuuti rek ba heure bi jot heure bi dafa am xeex boo xamante ni moo ëpp farata te ñun jeunesse bi ñoo koy xeex te balaa gars yi di la faagaagal wala ñu lay indil yenn problème yi damay bëgg nga am tuuti intelligence boo xamante ni da nga koy doxe boo xamante ni day wane ne yow li ngay xeex war na mën a am njariñ ëllëg pour say doom ak say say say say say mbokk ak say xarit te importance boobu mu am pour pour yow nga liggéey ci li ëpp solo mooy nga gën a toog concentré waat wàcc tali bi wàccal tali bi wàccal tali bi parce que dañ lay sonal dañ lay sonal dañ lay bunduxatal xam nga te ñi ngay xeexal quatre-vingt-dix-neuf pour cent bi yëpp ñoom seen yoon nekkul ci li ngay xeex Auchan dégage gaa yaa ngi dugg Auchan di jënd li ñu bëgg a jënd France dégage gars yi heure bu ñu xëyee téléphone yi ñuy wax téléphone yëpp c'est français tele yi ñuy seetaan français suñu signal bi ñuy jàllale ci téléphone ak lépp tout est français armée français bi ñoo ñuy contrôler ba léegi di contrôler sa président xam nga ba kii nga xamante ni dafa indi coronavirus bi lenn dong nga tax mu dugg Sénégal mooy complexe wóor na ma ne complexe la xam nga bi muy wàcc aéroport wóor na ma ne kenn kenn kenn kenn kenn xoolu ko kenn lijjantiwu ko xam nga. ma sœur Nafissatou maa ngi jégalu ah keroog dama laa fàtte dugg ndakaaru génn àndaat ak sama boîte xam nga génnaat dëkk bi mais dinaa la woo téléphone Nafissatou merci beaucoup ci tekkeer bi ngay tekkeer suñu papa Abdoulaye Wade xam nga merci beaucoup yéen ak waa PDS ba pare xam nga di ñaanal waa PDS ñu egg ci le 19 incha allah pour ñu won Macky Sall ne ko ñun suñu baay suñu baay lay doon ba léegi xam nga wësam xam nga sama gars yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu. léegi xam nga masque yi maski yi masque mhm. man moom xam naa ne xam naa ne xam naa ne ab kaw-kaw laa munu ma koo teg sama bakkan yi dama leen dama dama jox explication rek nag suñu dëkk bi dafa bari ay kaw-kaw dafa bari ay dof gis ngeen Macky Sall sànq mi ngi wax du joxe loxo ndax coronavirus bi te takkul mask te day tukki rek te ñu ngi wax ñaari cas ñoo am Sénégal bàyyi leen ko xel ñaari cas ñoo am Sénégal te xoolal délégation Macky Sall bi ñoom ñëpp ak avion bi indi coronavirus bi avion bi Macky Sall ko defar ña demoon indi corona bi moo leen yónni waa ji ko indaale waa kër Macky Sall la ko indaale ok kon lépp Macky Sall le plus grand doméram du coronavirus au Sénégal te mën na am deuxième cas bi ñuy wax ni deuxième cas bi ñuy wax ci ay nitam la parce que ba léegi nangu ñoo joxe explication nañ jox sénégalais explication ne deuxième cas bi ok am na ca pale ba xam nga avenir de la république wala am na xam nga sax euh, euh, euh, nu mu tuddati am na Mermoz këram comprendre nga ñu xam waaw parce que yéenewuma ko beneen sénégalais bu dul maki Sall na yem ci këram ñoom les hippopotames les Marème fay les Aline Nunux Sall ah les les les dooméram Mansour Faye les les les Timbo Timbo sàcc les les dooméram coronavirus bi pour yéen la comprendre nga li ma la wax c'est juste pour les dooméram léegi nag sama message mooy sama mbokk kaw-kaw yi yéen séeréer si ngir yàlla xam naa ne tàmmu leen ay masque waaye wut leen ay col dégg ngeen ah? wut leen ay col yéen tukulóor yi soxlawul may wax ak yéen yéen waa Fuuta Matam Wuro Soogi Wuro Fonde Agnam xam nga dama leen di dimbali rek ndax Macky Sall dimbaliwu leen man mën naa leen a dimbali lu mu bon bon xam nga jël leen col yi comme ni ngeen koy defee ci poussière bi xoolal jëleen leen yi ndax xam naa ne masque yi moom day manqué Sénégal am na ñoo xamante ni bu ñu naree jënd masque juróom fukk yee dinañ ko jëndee portefeuille ne naan ko parce que Sénégal dara amu fi xam nga nit ñi dañoo sonn yaa ngi dégg te masque yi gars yi gën nañ koo yokk xam nga dem na ba presque keroog ma maag wësam ñoo ànd mu koy jëndal grand frère xam nga mais affaire yi dem na ba presque dem na ba presque ay trois cent francs yee léegi dooméram bi xam nga le plus grand dooméram hippopotame du Sénégal ak suñu dix mille millions milliards yi xanaa war naa jëndal Sénégal mën naa war a jëndal Sénégal yëpp ku nekk benn masque Alioune Sall dooméram comme xam nga affaire bi gis ngeen ya waat waat moo baaxul waat moo baaxul te Alioune Sall keroog ba muy waat waxoon naa leen ne barke sëriñ tuuba waat gi muy waat ci suñu kaw lay këpp ñun. xam nga moo indi oto Macky Sall tàkk ci kawam moo indi tey coronavirus wuy yaay géejawaay ay waay yàlla ay yàlla ay yàlla yàlla yàlla walluñu yàlla géejawaay yàlla géejawaay gii ma nekk ku añ doo reer yàlla yàlla walluñu yàlla suba ba léegi ay mburoog fataaya nga may romb ak ay kopp fonde yàlla walluñu yàlla walluñu ngir yàlla yàlla yàlla yàlla Macky Sall dañ ko jox budget huit milliards mook njabootam yàlla walluñu yàlla ay yàlla yàlla dimbali ñu ngir yàlla yàlla yàlla e àlla e àlla Allah, Allah, Allah, Allah, come on for me, Viens pour moi, viens pour moi. Je sais bien que tu, tu comprends le français. Et je sais bien que tu parles l'anglais. Je sais bien que tu comprends le Wolof. Et Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Guéjawaï. Guéjawaï, Gounas, dafa jege dafa jege trop marché njaareem àlla ñëpp fonde la ñuy dunde xam nga ñooñu amuñu ordonnance coronavirus ngir yàlla àll e àll commune Assane Diouf ngir yàlla jàpp ci rek jàpp ci rek ngir yàlla àll doomeram bi Macky Sall tukki na ànd ak délégation xam nga ñu dem foire indil ñu coronavirus ay e àll huit milliards la toogaale rakkam sàcc dix mille milliards ci sénégalais yi e àll man maa lay woo man la Assane Diouf ngir yàlla dimbali ñu rek dimbali ñu dimbali ñu ngir yàlla nga suturaal ñu nga sagal ñu xam nga nga nga nga nga yëkkatiwaat ñu tuuti xam nga ndax ñu mën a yëg suñu bopp ndax boo ko deful day ñii dee fii dana bari lool fii ci réew mii parce que réew moo xamante ni facture courant yi mi ngi rey nit ñi réew moo xam ne ndox mi mi ngi rey nit ñi réew moo xamante ni président bi chaque jour ma ngay jël avion di indi coronavirus réew moo xamante ni kenn dundul kenn amul loo lekk kenn amul loo naan réew mi metti na àll àll ngir yàlla eh America please we begging you guys Trump I never call you for help but I need you my brother I'm from Guédiawaye city and we had the coronavirus right here, right now. Please, we need your help, Mr. Daniel Trump. ngir yàlla soxla nañ la de man de musuma laa ñaan ndimbal waaye bii moom dinaa la ñaan ndimbal ndax senegal yi rëfule nga ma ñaanuma la ndimbal Amérique toroxal nga africain yëpp di génne immigré yi ñaanuma la ndimbal wàcce nga économie àdduna bi ñaanuma la ndimbal waaye coronavirus moom Trump ngir yàlla dimbalil Sénégal man maa la ko ñaan ngir yàlla dimbali ñu rek Macron ngir yàlla masque yi ngir yàlla parce que bëggoo damaa soxla sama mbokk yi damaa soxla sama doom yeeg sama jarbaat yi ba pare xale yi ànd ak man di liggéey e àlla e àlla soxla nañu masque yi de Macron Macron ngir yàlla dimbali ñu rek yónnee ñu ay masque ñëpp laay woo xoolal Kim Jong Un Kim Jong Un dinaa la woo sax yow dimbali ñu rek boo ñu mënee may ay masque ngir yàlla xam nga ngir yàlla ak yonente bi may leen ñu ay masque ñun ay ay baadoole baadoola lañ amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan xam nga ba pare comme yéen ñun ngeen di dunde waaw bu ñu naree dee xanaa di ngeen ñu dimbali nag xam nga sànni ñu sax ngooñ waaw te xam naa ne coronavirus bi moom xam nga li koy faj mi ngi ci ñax mi mais man Assane Diouf li may digal sénégalais yi ku ci yëg sa yaram di tàng mbaamuy kii waaw bul fàtte ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul ne woon na bisaabam bii lépp lay faj kafe Toubaam gii lépp lay faj tari ci mat la bul sifaayi mu sifaay lépp xam nga nga naan ngir jëmmi Serigne Touba di ñaan sëriñ Muntaxa ay sëñ bi ñaanal de boo ñaanul moom géejawaay moom comme yow chaque fois da ngay ñëw géejawaay boo moytul boo ñëwee doo fekk ngir yàlla ak bi ah, sëriñ Mansour si ah, sëriñ waa waa Medina Baay waa waa waa kër maam Limaamu Laay ay yàlla e àlla dégg naa laay laay lañuy wax de mooy mooy mooy sa sant ngir yàlla jàpp ci jàpp ci Macky indi na virus bi biir Sénégal coronavirus yegg si na nuyoo na salaamaaleykum koŋ ca pale ba la commencé xam nga li ma la Macky ne ko du ko fay xam nga ba délégation bi indil ñu ko nag léegi nag xam nga pour ñu jubbantiku day metti ci ñun torop ba pare balaa may jeexal comme keroog internet bi dafay dagg ba li ma bëggoon a wax yépp ci ndaw soosu ñuy wax la grand cagaku cagaku jàllo ma mottali ko yéen doomeraam yi nekk ay France ak Italie xam nga en ah, Bordeaux fu ngeen mënti nekk mbuur ak ñi may woo di ma bàyyil ay ojo di ma saaga duma leen saaga yéen man ki tax ki tax sëriñ Muntaxa xaane xolal àdduna bi dafa soppeeku waaye bu démb doon tey jaasi la ñuy jël xolal pàcc la cap cap cap la sànn ci sën ba kooku laay waxal muy le grand caga Aïda jàllo yow cagatu nga fépp cagatu nga fépp fii nga ko commencé géejawaay teg ci pikin dem croisement Béthio jóge croisement Béthio yóbbu ko cité Lobat Fall jóge cité Lobat Fall yóbbu ko mbuur jóge Mbour yóbbu ko jannatu ca Touba far bu nekk nga lijjanti ko fétis bu nekk nga lijjanti ko def sa jëf ju bon fu ne daggi bopp xeesal ak jaay jikkooy doomeram ñu di la seetaan may wax say nit génn naan dañ leen a menacer te ñoom li ñuy wax maanaam defuñu sax ay analyse mi ngi mel ne tey man Assane Diouf ma moom sama kër jur samay doom bàyyee leen sama alal sama kër sama lépp nga ñëw ba sama diggu kër teg fa sa tànt teg say cin ma ne la cin li du tàkk nga wëlbatiku ne directement cin li day tàkk par force ndax mankat ci kër gi laa bokk te boolewuñu la ci kër ga loolu yow yaa menacé sa bopp parce que violation de domicile la te loolu la ayda jàlloo def biir kër Serigne Touba violation de domicile def ko biir kër Cheikh Béthio ma bëgg a fàttali sénégalais yi 2016 2017 bi may jóg di commencé wax ji dama dama dama dama dama ko jël ci dëgg dama ko jël ci dëgg rek xorom leen ba mu saf sàpp ñu ne kii dafa yaree di ko parce que jëf ji jëf ji jëf jooju tey soppeeku sëriñ Saaliw ci ñëw saal sëriñ Saaliw Mbàkke moo ko yar yaa ngi dégg mu nekk doomu Seex Béthio Thioune kenn gisu ko muy tëb di dal kenn gisu ko muy tàccu kenn gisu ko muy toj ay walis di wane kenn gisu ko muy taaxuraan kenn gisu ko muy def dara lu nuroog lu bon benn caga boo xamante ni bërki Dembo Njaay li tax ñu juge sañ Béthio Thioune ci la bokkoon xam nga reylu ay nit tey mu bëgg a indi beneen tariixa biir senegal xam nga di wax naan ay day jiiteeg day def billaay wallaay wa taalaahi Baay Faal yi yegg si nañ Baay Faal yaa ngi ñëw te Baay Faal yi egg dinañ téegal sa ndey lu leer laa lay wax dégg naa ngeen ni jaay ñaaw làmmiñ yéen ñëpp yéen ñëpp bu ñu leen boolee tegal ma leen ci benn bayaal xolal xam naa liy téegal seen ndey duma toog di saaganteeg yéen moom caga bi laay juutal rek def li ma war a def xoolal ci seen kanam te du ngeen ci mën saram ndeyam parce que doomeraam doomeram la te doomeraam doomeraam lay jëflanteel c'est moi Assane Diouf la patron de doomeraam TV dégg ngeen dégg ngeen li ma leen wax téye leen seen bopp ngeen yaru xam yéenay kan ngeen xam ne yoonu Serigne Touba bi bañ koy liggéey liggéeyuñ ko pour Aïda Thiaga Diallo dégg ngeen xam naa nag tatoom yooyu moo leen di daaneel yéen ak toog yi muy toog ak yéen ngeen koy xool bu guddee xam naa ngeen dugg seen néegi di mballoo ko defay ay affaire ay doomeram ngeen mais nag li ma leen di wax ni duma leen ko waxaat te bis bu ma ñëwaatee pour Aïda Diallo barke sëñ ba ay photo sax dinaa leen ko tegal mais nag dafa am lu may rus te li may rus mooy lu mu bon bon bon bon bon soxnas Cheikh Béthio woon loolu rek laa ciy rus mais bu dul loolu leneen lu mënti doon rek téegal ndeyam laa ciy teg waaw te foofu rek laa mën a yem ak yéen léegi nag li nga xamante ni moo ëpp importance mooy li commencé layf bi Euh, dañoo war a jël test yi test yi ñu war a test yëpp sax pour coronavirus bi ndax day faj ak du faj ci Aïda caga jàlloo lañ ko war a essayer dooméram boobu bu ko defee buy faatu mu faatu benn yoon après loolu ñu dellu si ci coronavirus ma daaneel ma jeexal xam naa ne fi mu toll nii xam nga namm ngeen ma trop parce que toogaay bi déclaré wuñ ko xam nga mais xam nga booy toog di wax lu mat presque junni doomu aadama li ko manqué junni doomu aadama di la seetaan mooy am na cër boo xamante ni sénégalais yi jox nañ la ko. moo tax démb waali bi ma duggee ci biir stade bi rek daf ma ne grand ma ne ko mu ne ma dimbali ma nga wax ci coronavirus bi dimbali ma rek te nga wax gars yi ñu dem wuti ay masque yaa ngi dégg wut leen ay masque ñi mënta am masque fagaru dafa baax ci doomu aadama fagaru dafa baax ci doomu aadama man école douze bii ma nekk heure bu ma xëysee damay teg ay siwo ndox xale yi xoolal ñoom ñëpp laay raxasuloo par force par force waaw parce que sama devoir la man ma def ko li ma war a jëflanteek sama doom moom lay jëflanteeg xale yi nekk ci koñ bi li ma war a jëflanteek sama waa kër moom laay jëflanteeg xale yi nekk ci koñ bi moom laay jëflanteeg quartier bi man duma defar sama buntu kër bàyyi yeneen buntu kër yi lépp laay boole defar li ma ci mën rek laay def mais lii moom jàngoro la boo xamante ni tey bu ngeen gisee mbeddu ndakaaru yi mbeddu astafurlaa géejawaay dafa mel ne dañ leen wax ne ku ku génn dee mbedd mi nit ñi dañ doon taxawaalu gaa yi daan toog ci jagg beeg ñiy taxawaalu ci mbedd yi ñëpp a ngi seen biir kër yi loolu mooy fagaru balaa ngaa lakkale yaa ngi dégg voilà léegi senegal man la Assane Diouf loolu laa amoon lu ma leen jox bi tamit pour Guy Marius Sagna xam nga Guy man la Assane Diouf maa ngi lay ñaan nga toog ngir yàlla nga toog nopp lu tuuti rek tuuti rek parce que dañ la soxla xeex bu mag baa ngi ñëw te xeex bu mag bi bu ñëwee gaynde yee ko war a xeex te yow ci gaynde yi nga bokk malay ñaan ngir yàlla nga toog noppalu tuuti waxtaanaat ak sa papa waxtaan ak sa doom yi waxtaan ak sa njaboot xam nga dellusiwaat tuuti rek tuuti rek yàggatul yàggatul barke maam Cheikh Ibrahima Fall billahi wallahi wa taalaahi maa ngi leen koy wax chaque jour gëmu leen ko Macky Sall du am deuxième mandat fii senegal deuxième bàmmeel kay lañuy wax deuxième bàmmeel fan lañ koy defal deuxième bàmmeelam parce que xam nga buñ ko jàppee moom moom pare na ci te ñun ñooy Sénégal ñun du ñu Guinée du ñu Côte d'Ivoire du ñu du ñu benn réew dañu am ngëm-ngëm am ngëm-ngëm moo tax yàlla may ñu Baay may ñu Sëriñ Tuubaa may ñu Baay Ñas may ñu Maam Limaamu Laay may ñu ay kilifa yu am njariñ pour Sénégal yaa ngi dégg moo tax ñun ñooy Sénégal ni ñu defoon ba ñoom doomeraam yi ñu ñëw indi ay manipulation ba ñu dal ci kaw Papa Abdoulaye Wade Papa Abdoulaye Wade préparé woon lenn lu dul dimbali Sénégal mais doomeraam bi dafa préparé luy lor Sénégal parce que njabootam sàcc nañoo sàcc sàcc sàcc sàcc sàcc ba sàcc fu sàcc newul parce que ay junni junni junni junni milliards àdduna bi yëpp di ko waxtaane américains yi di ko waxtaane naan naka la benn doomu aadama mën a sàcc alal bu tol noonu ba pare sax continuer di nekk maire continuer di nekk maire ba pare ñuy préparer waat seen bopp pour xam nga jaaraat ci ay élection ñëwaat nekk maire Assane Diouf a ngi fi dinañ xorom seen job bu ndey ba du tal sax wax waxi troisième mandat yenn avocat yi toog ci tele bi di wax manipulation la Mbaye Ndiaye duulkat la manipulation la keneen kuy toog di wax manipulation la yéen sénégalais yi am leen fulla ju mat sëkk ngeen xam ne xoolal mag ñu baax ñi daf ñoo am lu ñu liggéeyal te loolu ñu liggéeyal loolu ñu ñu liggéeyal xoolal nga xam ne yàlla da koo def ci Serigne Touba ba mu bàyyi fi lépp dem ci géej gi def ko ci maam Limaamu Laay ba mu randal géej def ko ci maam Alaaji Malick ba mu xàll àll bi mu leer naññ muy tuwaawan ñëpp dëkk fa def ko ci maam baay mu dem ba Medina baay xola xàll ko tuddi ko Medinatul Munawara ndax xel mu dal ak mën a xeex waa sama gars yi ñun ñooy Sénégal waaye waaye Macky bis bu génnee ne troisième rek xolal bu leen ko may sax fu muy nooyee téegal leen ndeyam noonu la affaire yi demee parce que xolal kenn moomuñu te dafa wax wàqi wàqeet waxati wàqi wàqeet waxati wàqi wàqeet waxati wàqi wàqeet waxati wàqi wàqeet ba waa Fatick ga mu dëkk Fatick ga mu dëkk ñëpp a fatigué ñëpp ñëpp a barki sëñ Touba gis ngeen leen ci internet bi ñuy jooy gis ngeen suñu mbokk lébu yi ñuy sagal di ñu wàcceel jën xam nga di ñu dundal waa Géet Ndar waa Mbuur Géej yaa ngi dégg ah, waa Sumbu Jun ah, waa waa Mbooro ah, fépp ci Sénégal baykat yeeg nappkat yeeg ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñoo gën a riis États-Unis muy baykat nappkat ak yooyu ñooñu ñoo gën a torox Sénégal ndax lan état boo xamante ni benn dooméram moo ko jiite bu ñuy wax dooméram Macky Sall monsieur maquillage lépp lay maquiller ànd ak ay dooméramam ànd ak ay ministre conseil dooméramam ànd ak benn Aly nguy njaay ànd ak benn procureur boo xamante ni xam nga yee xam nga waxuma la wat nel waaye dañoo waral a lelli wat nelam bi xam nga ànd ak ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara dara dara dara zéro xam nga moo waral ñun sénégalais yi dafa jot pour ñu booloo te mbooloo boobu ñuy booloo hey man la Assane Diouf sama numéro ñëpp xam nañ ko yéen ñi nga xamante ni yéen a toogoon ci internet bi di saagaak yëpp sama loxo ngi nii maa leen ko tàllal xoolal dellu siwaat leen ñu xeex pour Sénégal parce que loolu moo ñu taxoon a jóg moo tax man nanguuma woon toog di saagante kenn ñu fi toogoon di saagante lu tax muy wax Sonko lii lu tax muy wax Idi lii lu tax muy wax delloo siwaat leen seen xel yi rek ngeen xool ba ma waxee loolu ak léegi lan moo fi xew lan moo changé dara changé wul de te ñoom ñëpp ñi ngi dem di toogaat ak Macky sàll ci ay dialogue ñoom ñëpp ah. bu ngeen ko xamee bu ngeen ko xamul xam nga ma wax leen ko ngeen xam ko léegi ma bëgg nag xam nga fi mu toll nii nii nii nii nii ngeen dellu ci biir xare bi François Hélène Gueye sama sœur numéro un Georgie numéro deux ah Omar Ndiaye Modou Gal Sène tous les combattants sauf le grand doméram Ousseynou Assane Diagne borom tur bu dëgg ndayam boobu sàcc boobu ba pare képp ku nekk OSR xam ngeen dëgg gi Pape Diouf xam nga Sali Diop xam nga Ren jóob xam nga ah Yaa Khady xam nga Codé Diagne xam nga Ousmane saw xam nga xam ngeen dëgg gi lan moo tax sénégalais da xam dëgg ba pare bëgg a tegu feneen lan moo tax ñun ñëpp boycotté nday OSR parce que ay doomeram ñoo ko géré may wax ñu naan xam nga Assane Diouf li muy def ñun ñoo yéen lan ngeen mës a defal Assane Diouf vous les dooméram yow Assane Diagne yow laay waxal lu dul xale yi ma àndal ci dëggal suñu bopp nga taxaw fen leen ah ci whatsapp bi dinaa leen yónnee ay mayo dinaa leen jox li dinaa leen lépp nekk ay duul ngay wax ak man defe ne man benn dof laa ay di ma laaj sama page YouTube pour ma jox la pa code beeg affaire yooyu yow da nga defe ne xanaa man benn con laa maa gën a jàng sa ndey maa gën a jàng sa baay te bis boo to xolal xam naa fi nga dëkk waagu ñaay xam naa seen kër xam naa sa yaay xam naa sa jabar xadi am naa lu may ruus tuuti ci moom mais bis bu ma paree pour pour pour pour jublu ci yow barke Serigne Touba Mbacke di nga wàcc ci internet bi parce que lépp lu nit ñi doon wax ci yow dëgg la lépp lu François Hélène doon wax ci yow dëgg la ak yeneen doomeraam yi mel na yow xam nga sukkandiku ci turu assan Diouf xam nga ñiy créer ay association ñiy créer ku nekk créer sa ci Assane Diouf xama ba pare di wut fooy jafandu ñii naan ay Sonko laa ñii naan ay Idi laa ñii naan ay Karim laa ñii naan ay Macky laa lépp dañuy duul ñun ay Sénégal lañu Sénégal ok Sénégal for life Sénégal pour toujours sama gars yi sonn naa nag dama doon bëgg wax ci coronavirus bi rek mais comme xam nga gars yi dañ may namm toujours xam nga yéen huit cent personnes yooyu toog di ma seetaan ku ci nekk fa nga nekk toog fa nee naa la jàpp loxo ne la man la Assane Diouf baal ma àq baal naa la nañu yàlla boole jéggal ñu fekk déwén yu bari li tax ma koy def nag coronavirus baa ngi géejawaay te wóoruma ndax suba man duma ci jël sama wàll dégg na ah? yéen ñiy dem poroxaan yàlla na leen yàlla teg ci yoonu jàmm yéen jigéen ñi dem poroxaan ku ci xeesal wàccel ci yoon wi xoolaat sa bopp te xam ne soxna sa ngay seeti moom mësta xam luy xeesal te loo ko tagg-tagg ba pare boo duggee sa néeg jël biteelu eau de Javel bi eau sa bopp moom loo ko tàllal du la ko may ñëpp laay wax nag commencé ko ci samay yaayak samay mag ak samay nijaayak samay jabaru nijaayak ñépp képp kuy xeesal moom fii Sénégal xoolal soxlawul ngay génn di xeex di waxal Sénégal dara parce que danga jaay sa bopp ba pare te nit bu jaayee boppam jaay askanam mën mënta xeexal askanam wàcc leen xeesal bi dolli bi dolli bi yaa xadi sali jóob dolli bi bàyyi leen ko dégg ngeen bàyyi leen ko ñëpp laay waxal dëgg gi moom xoole ci taabal ji rek yéen ñëpp bàyyi leen dolli bi xam nga teg leen xeesal bi ci suuf tubaab yi mën ñoo respecté bu ko defee Afrique mën a nekk Afrique mais Afrique boo xamante ni boo nee cëpp Afrique ci aéroport bi ñi lay boo fa fekkee ab xale bu jigéen day mel ne tubaab te tubaab bi yëpp Hors bi la topp rek di Hors boppam heure bu xëyee te Hors boo xamante ni yow boo demee ba am cinquante deux ans cinquante trois ans dootoo mën a Hors de Javel voilà bàyyi ko bàyyi ko ngir yàlla ngir yàlla ak yonent bi bàyyi leen Hors de bi xam nga. bàyyi seen yaram yi mu dundu ngeen joxe teint clair man mi ñuul ñu laayu jaam bi ni la taaro sama der bu ñuul bi ni mu ñuulee noonu laa ko fonke sama bakkan bu ñuul bi ni mu ñuulee noonu laa ko fonke sama dëkk bu lëndëm bi ni mu lëndëmee ndax sama ñuulaay noonu laa ko fonke noonu ngeen war a fonke senegal continuer leen ngeen bég ngeen gore ndax senegal continuer leen ngeen am fulla ndax Sénégal continuer leen ngeen booloo ku nekk jox sa morom loxo ndax senegal continuer leen ngeen góor góorgóorlu ci jàppale doomu sénégalais yi sonn ba pare message bi gën a garaaw nag mooy dëkk bi ñu nekk muy Sénégal kuñ fuy limal li nga am doomeram nga képp kuñ naan oh milliards yi mu yor ku mel ne yuuxu mbalit nduur tax ñu bëgg a tëj compagnie yi jaay ndox ak yëpp parce que machine emballage am moo génn Sénégal yëngatu leen de yëngatu de ba pare goos boobu tamit ñuy wax Pape Lëg juuf Lëg de Lëg de daa daw ba jam ñaajo nee na nee na Arena Dakar Arena la jëm ndeysaan lëg ay waay waali waali yërëmal waali yërëmal gars yi waay waali yërëmal bàyyi lëg yuuxu mbalit nduur waali yërëmal yuuxu mbalit nduur mu mën a fayee ko tuuti mën a fay suñu impôt yi parce que impôt yi dina ko fay waali yërëmal lëg juuf la foo géwél yërëm ko ngir yàlla ndax mu mën a feesal ku mënta feesal naka la place bi tuddati sax ku mënta feesal vogue est-ce que est-ce que est que mën ngaa feesal Dakar Arena koo xamante ni foo dem ci àdduna bi xoolal saisi day vide ngay nga naan damay dem Dakar Arena ay waay lëg juuf lëg tey la rëkkante bi de cottu ndey ka la ndax tey la rëkkante bi rëkk ma mbaama rëkk la xoolal man duma ma rëkkanteeg yow waali rëkk na seen ndey bu yàgg ba nga toogee di ko jëw la rëkk sa ndey ba dootoo siiw te waxoon naa la ko avant may ñëw Sénégal neewoon naa la maa ngeeg say audio maa ngeeg say audio bis bu Basirou Gueye Basirou Gueye ay Basirou Gueye jox ma sama téléphone yi jox ma sama téléphone yi rek ngir yàlla bu ko defee ñu xam ndax Assane Diouf li mu doon wax dëgg la wala du dëgg te avant may ñëw sax di wane yàlla moo wane dëgg gi parce que yow lëg yaa toog di jëw waali ba pare toog doomeram bi doo meram bi elie nga ñëw sax ne noo dama juum pardon mais non lii du man quoi montage la gën a yokk duul yi te sama papa doon na wax naan fen moom boo ko xasee ba def benn yoon fenkat ngay doon ba ba ngay dee parce que heure boo xëyee da ngay xëy di defar fen gi te te fen looy fàtte la parce que lu dul dëgg moom chaque jour da koy fàtte léegi fen yooyu nga fenoon fen ko yeneen doomu aadama yi fen yi ba léegi wàccegul mi ngi fi lëg yéen doomu sénégalais yi yee maa ngi leen di ñaan le 4 avril tal leneen lu dul dem jóge fii di dem ba ay jam ñaajo parce que xoolal bu leen fàtte ne dooméram yooyu li tax ñu am bu leen fàtte ne ci ci élection yi ah am na ay politiciens yu bëggoon a jot ci Dakar Arena ñu ne duñ leen ko jox bu leen ko fàtte man du ma fàtte man sama xeex lépp laay jàpp rek parce que boo ma mattee fi nga ma màtt dama koy ko bis mooy màtt sa ndey foofu laay màtt sa ndey ba yóbbu yàpp bi noonu la ñuy xeexe bu leen fàtte ne Dakar ari na xoolal ñoom ñi doon politigal Macky Sall les APR ñoom rek lañ koy jox Pape Diouf doomeram boobu lëg Diouf laay wax sax njombar seen gudd nopp gàttu geen mën a daw xoolal doomeram bi xamoon nga ne di nga génn prince aar xamoon nga loolu parce que xolal dañu laa ngacca ngacca ngacca ngacc ba ba boîte boo dugg munoo jaay taabal ñu xalab la ci àll bi nga naan da ngay dem Dakar Arena yéen jeunes Sénégal yi billaay wallahi bu ngeen ñàkkee fayda bay jël seen oto yi wala ñu jël ay taxi di dawal ba ay jam ñaajo ci pënd baak poussière fii nga xam ne boo solee lu weex boo dawee balaa ngaa egg jam ñaajo nekk mu nekk lu marron boo solee lu rose balaa ngaa egg njam ñaajo mu nekk lu lu lu lu bula kon boo yoboo ngeen toog seen kër yi la 4 avril feete seen feet seen suñu foo feetu indépendance boobu ñu feete ko suñu biir kër yi sax xam jàpp ci rek parce que ñoo am indépendance waaw waaw mi ngoog xam nga te comme ni ko sama rakk ji waxee nee na wóorul sax daa wóorul sax ngay topp àll bi ba jam ñaajo xam nga ci stade boo xamante nii xam nga ñaanuma ko yàlla mais la fa nekk yëpp gaaf la ndax Macky Sall gaaf la lépp gaaf la xam nga gagné élection deux mille dix neuf ah deux mille vingt coronavirus nga indi ko ak say délégation ak sa Air Sénégal bu tégal ndeyam boobu le plus grand dooméram Macky Sall xam nga man la Assane Diouf sama gars yi xam naa ne yëf yi neex na trop mais ci mbedd mi laa toogoon rek xam nga waxtaan ak yéen tuuti pour ñu dellu siwaat xel yi parce que daje yi bari naa daje yi dafa bari yéen ñi dem poroxaan yóbbaale leen saabu bu dul jeex ak eau de ci mën a am sanitizer yee nañu ko yóbbaale ba pare lépp lu ngeen di lekk raxas leen ko juróom-ñaari yoon lépp lu ngeen jënd muy soble muy tamaate muy lu mënti doon raxas leen ko juróom-ñaari yoon bu ngeen demee ngeen nuyul ma maam jaara suñu maam ju baax ji di ñaan yàlla leeram yi gën a yokk bu ko defee senegal gii ñu nekk coronavirus bi bu alxamesee bu ñu màggalee ba pare soxna jaara buso waaw bu ñu raxasee ndab yi waaye yàlla na raxasaale coronavirus bi mu génn senegal waaye parce que fii dañoo sonn de gars yi mënuñu am sax xolal naka la comprimé comprimé bi faj bopp buy metti fii senegal nu mu tudd paracetamol sax pour ñu jënd ko problème la waxuma laa nag ordonnance coronavirus waaw gars yi moom li ñu nar a jënde paracetamol la ñuy jënde potofonde bu ñu naan mbaa ñu dolli ko ci njëgu mburu bi suba wala ñu dollil ko xale yi njëgu mburu suba ba pare yéen ñi nekk ci àll bi xam nga di taxawaalu naan da ngeen di mars ak da ngeen di def affaire arrêté leen ko ngir yàlla maa leen ko ñaan yee bàyyi leen masaalikul jinaan mu nooyi tuuti jumaa jumaay sëñ bamba ji parce que heure bu ngeen demee di mars xoolal jinneem yiy julli si xam nga dañuy tardé ci yoon bi te loolu da leen di gën a tardeel day gën a tardeel Sénégal mars ajjuma doo dem fenn moo tax état bi di leen jox vendredi chaque jour ajjuma nga di ko mars laaj ko réew yi koy def demuñu fenn dégg ngeen algériens yi